sama kibir da ngeen ma ñaanee de moo tax ngeen sàcc sama kibir sàcc samay fan loolu duma gañe ma fekk ma sama kibir sama kibir sama kibir waaw waxuma loolu sax waxuma loolu sax wuyu ma samay gaa sax dañ koo saay jota ma dugg de moo tax affaire bi pareegul man damaa wóolu sama bopp nekkuma fii di woote kenn pour mu toggal ma xale bu ndaw wóolu la xoom sama cin na ngeen essay xoolal essay essay yow mag yi dañoo tiit ndax damaa ñëw ak légèrement attentivement stressé wu ma benn yoon bis mais bis bis bis nu la bibis di def bis nan la la bibis di def waaw xam nga yaa ngi Eh. kita ada jenggak kritik, bapak ada sɔrɔ k'i ɲini dɛ ne k'i la sa ne É, vídeo, vídeo. É, como que é? visu, visu, visu, visu, visu, kontaan naa leen. kontaan naa leen. gars yi. xam ngeen ko de. am na ñu that's my ball. jasiti ñu ngi ñëw. gisoo xale dañuy xaar ñu leen di jasiti rek ñu commencé teg. waa léegi yow lan nga war a togg tey. crocodile. <laughs> nga. crocodile moo gën a xam nga man biisu ngoone man dama bëgg luy dund ci géej yàq mënuma teggi luy géej. man dañ man dama dama bëgg luy tund ci géej. stand bi nag wax dëgg yàlla. stand bi. rakk na liggéey yi tàmmee nañ. waaw dëgg la daaw ajumaas la woon sama rakk yaay. ndeysaan kii it sama rakk yaay. ndeysaan tukulóor ku rëy borom jigéen kii papa la bokk sama yaay kii yaay la bokk ak sama yaay. stand bi moom sama stand famille lay nekk chaque fois. ndeysaan oh hasard amul. I'm not your kid. I'm not your kid. Goose, goose, goose. Wait, goose, goose. Goose, goose, goose. Tug it, tug it, tug it. Lotus. Tiga wal dekta. Udah ada sampul udah. Tapi kira ini yo sampul sih. Lotus. Dekta. Lotus.

waaw beneen mi ngi nii rek yow ñii dañoo feesagum sax ñii fee xoolal xar yaa ngi nii noppalu loolu laa mën a def barke yàlla xalil doo may ma yéene daal di def daal di ko fitna xam nga rek hygiène non non commencé ñuy seer ñuy fees waaw fii naa sama xarit bi yaa meer nag wasar ca wasar ga la ca tasar ga la sama doomu ndaay ngi nii Waterban. Aliou sama turandoo. kee si trois Diamonds. waaw niiyee la. ak taay bu sax wala wala. sama kii ma fi indi nag. ca Waterban. Ah, sama tiga. ma indi jëlaale leen ko. tey si trente baax na xel dal na. doo ko def dëggal sa làmmiñ ah daggal daggal surtout yaa salaam nga pare pour feesee Moussa mun nga fees léegi la morale bon ban ngay def feesu ko fees feesu ko xees wala xeesu ko ñuul waaw fees foog nga may dédicace ci diggu fees followers yi sax ñëpp a ngi aal non pas du ma def yëpp ñoom laa ko may. mais pas du non non waneel waneel ma ne dinaa jëlal détail ba direct bi commencé télé ba arrêté. followers yi moom. ñun lépp lu ñuy def ndax ñoom. bu ñu newoon léegi arrêté leen ngeen ñibbi dañuy arrêté ñibbi. billaay amul demal dañoo disqualifié. waaw loolu mooy disqualifié. waaw jaral nañu loolu. léegi yow daal fees bi may ma après defal dédicace may ko yom Lamine ñamaal. mu ëpp. ëffal sa ëff laay xaar ëff yaa ma mën nga fees ëff ëffal man mënu yooyu yëpp ah, waaw waaw waaw

Ami Faye xam nga lu tax ma ne Ami Faye parce que kii mooy nekk jabaru yoonu yàlla Moussa Faye ci kër gi ñu naroon ko ko may ma bañ problème am ma lanati eh, la lan la da dadaa den ubbil kii yi ko yow ubbi ndox lañ la wax lu réer xorom bi xorom bi ba tey feeñu bi cin ma fiyaa bi man na ullee ngi nga gàddu xam nga ne lii buntam ndam li demul Medina ba pare ngeen def vert blanc drapeau Medina bunta Bagna ngi ni rakku pour rakku Abdou Karim Bagna borom rob buy rafet souray borom cuuraay rose borom noir yu bax borom Gambie man foog nga ñëw ñu laaj ci gambe mi ngi am bu mo la bàyyi ma bu ci duggee bu TikTok bàyyi ma sama rek ko da ko ñu ma bàyyi la waaw waaw bàyyi ma sinap rek bàyyi ma Fatou Mbaye suñu yaakaar mi ngi nii Fatou Mbaye ngi nee toog ñu jàppale nga yëpp yang kita sefor, sa foor tiitoon naa mais amul tax sama xel dal dama gis ay xar jigen waaw. gen bu gen bu gàtt. wékk rek ne jibi sàmb ne nii. moom wékk ne faax moom ngay mu wàcc bu ma ofee bu la dara mais dama leen bëgg organiser seen yëf. ambiance yooyu noonu seetaani jibi sàmb xar yu jigéen ñi wax suñu waaw tekki ko bone. jëkkër ji di ko jox bone. waaw kay Babacar kan moo siy jëkkëru Fatou Mbaye Babacar mooy jëkkëru Fatou Mbaye ñëpp solal ko Fatou Mbaye alliance Nayasu Thioune